mu doon loo xamante ni ñu ngi leen di jagleel ay ndekki ak ay añ ak li nga xamante ne ni c'est euh, c'est pour la première fois mu am fi ay ay añ la doon doon tey jii nii an taxawu candidat yi jagleel leen ni nan ngi seen boobu. waaw dañ koy rafetlu rek ndax ku nekk ci école bi ku nekk sa xol sedd na ci ndax vraiment nekk ak candidat ñoo soutenir la vraiment lii leneen lay def ci ñun quoi ndax dem ba léegi dans bon bonnes conditions lañ nekk ñu ngi lekk ñu ngi naan. te loolu lépp dañuy gën a motiver rek jën ñoo amal ñu gën a taxawaat ci bagage bu baax ndax buñ nekkoon di xalaat leneen ak leneen mën naa mën naa perturber vraiment examen yi mais ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi remercier tamit yéen ñëpp commission bi di jiital ablaay yéen ñëpp jigéen ñeeg ñëpp ngeen ko defee vraiment rafet na ndax lii moom vraiment day dooleel dëkk te day dooleel tamit ay ndaw ndax ñun ñëpp xam nañ vraiment lii nii initiative bii nii mu def nii war na ku nekk buñ demee ba nekk ci suñuy domaine yu gëna normal ñu koy defal ñi nga xamanté ni ño top suñu yax ci suñu ci suñu ginaaw ak ñi nga xamanté ni ño top ño doon suñu yu rak ak suñu doom vraiment ñu ngi ci rafetlu torop ñu ngi ñu ngi am contentement ci lool voilà merci beaucoup moy ka xamanté ni kenn la ci ñi nga xamanté ño doon def euh, bac tay ji mu gënon pour wara ñew jël petit déjeuner avec lii bi yaakaar naa ndox mi dox na ak léegi am ngeen si benn problème. waa lépp moom lépp mot na moom wax dëgg ndox mi moom da lay fekk ba sa table. Hmm. ndox mi moom alhamdulilah moom. Ah, vraiment fekk la sa table ngay def sa exercice. ah bi gën a a réveillé wu quoi. noonu la demee saa boo liyee rek cons ndox. voilà yàlla a dem madame ñu ngi lay nuyu sa tur yaan la. Ami Collé Diouf. Ami Collé Diouf. waaw Ami Collé Diouf vous êtes en quelle classe. terminal L prime. terminal L prime. voilà nga def sa épreuve euh, ban épreuve nga doon def nii. épreuve français. voilà nga def sa épreuve français ba génn nii tey jii nga ñëwoon jël sa petit déjeuner nan nga gisee initiative bi nga xam ne On an taxawu candidat yi ñoo ko def nan nga gisee initiative bi. ah xanaa félicité On rek. Euh, félicité leen quoi. mais maanaam wàllum nourriture bi ah, réseau bi mbaa lépp ok rek am ngeen ci On problème lekk gi On tout ça.

Non, tane na rek. ah tane na. merci bonne chance beaucoup pour le reste quoi. Seynabou. Seynabou. Ciao. Seynabou. Ciao, ciao. Seynabou ciao. vous êtes en direct sur Ndondol Info. voilà yow nan nga gisee initiative bi nga xamante waa an taxawu candidat yi ñoo leen ko defal tey pour la première fois mu demee nii ban initiative nga ci nga ciy lancé. ça va maa ngi ciy rafetlu bu baax lii moom ah baax na de parce que instant yi am nañu sori te. Ah man ñoo ñibbi ba ndékki ñëwaat fii nii pour loolu yëpp ah maa ngi si lu bu baax daal. Euh, mbaa mbaa mbaa mbaa léegi doy na avec ndox mi tout ça. waaw lépp baax na moom macha ah. allah. naka épreuve yi mbaa li jàll aussi ça a été quoi à votre porte. ça va tane na bu baax. ah merci pour le reste. voilà merci beaucoup. xanaa def nga épreuve sa épreuve euh, la ban épreuve nga doon def. non épreuve français la doon def français. épreuve français tur bi nan la. mbay Ngom. Bai Ngom bai Ngom. bai Ngom voilà bai Ngom yow fan nga jóge ja fan nga jóge fan nga jóge ñëw fii nii jàng si fii nii. maa ngi jóge Ngeme Issa. Ngeme Issa par rapport mook lycée bi ñaata kilomètres la. non j' espère que il est environ de sept kilomètres. sept kilomètres foofu nga xëyee ñëw fii nii. voilà mu doon Mbaye Ngom mu doon élève boo xamante ne nii mook lycée bi sept kilomètres la tey mu ñëw fii nan nga gisee initiative bi nga xamante waa an taxaw candidat yi def pour maanaam warum resto warum euh, déjeuner bi. petit déjeuner bi ak ak ak ak ak agne bi tout ça yooyu yëpp nan nga ko gisee quoi initiative bi. non initiative moom initiative bu rafet la. waaw parce que yéen yéen ñu rel suñu restauration quoi. Hmm. waaw parce que même au niveau dans les salles de classe. bi ñuy def euh, épreuve yi dañuy mara naan mais des fois ndox mi day ñëw quoi. maanaam ndox mi day circuler quoi. waaw ndox mi day circuler quoi. sa seen ndox yi yooyu yëpp ëgg na fi. Hmm. ak añ beeg yooyu yëpp. loolu lépp daal moom yàllaa leen di fay ñu ngi leen di sant leen gërëm moom c'est une bonne initiative moom moo de Dieu. léegi nag épreuve yi mbaa jar rek moom euh, xaw na kii nii tuuti. non épreuve yi moom waa xaw na neex moom xaw na neex. Ah. waaw après yi moom set tellement abordable moom. Ah. franchement. waaw ah, merci pour le reste quoi. ok ok merci.